asalaamaaleykum ami sportif euh, Géejawaay info donc tey gis ngeen euh, ñëw leen fii ci euh, Géejawaay Géejawaay info ñëw fii ci dëkkam ñëw seet si doomam kenn ki nga xamanteni ni bokk na ci ñi nga xamanteni ñoo défendre woon couleur Sénégal mais pratiquement couleur yi nga xamante mooy Géejawaay Pape Aliou Ndiaye mom lañ seet fi nga xam moy jouru espoir bu Géejawaay fa lañ ko sélectionné mu bokk ci 26 jours yi nga xamante demo nañ défendre couleur Sénégal bu bokk ci aussi ci 9 attaquants yi nga xamanteni ni ki di euh, Serigne Saliou Dia amoon na confiance ci mom pour sélectionner ko donc ñu demoon pour défendre couleur Sénégal nek champion d'Afrique tout à l'heure dem nañ palais présidentiel ñu recevoir leen dinañ ci dugg après ci kanam tuuti dañ koy bayyi mu nuyo Pape Aliou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax baax waaw d'abord maa ngi lay fay mangi sante yalla bu baax di sante sama ñaari waju di sante sama famille sante ñëpp gërëm ñëpp. voilà euh, sélection bi ñu la njëkkee sélectionné nga bokku ci les 26 ban satisfaction nga ci amone kontaanoon na parce que yombul parce que il y avait trop de trop de jeunes là-bas ñuy sélectionné 26 c'était pas évident yombul mais ñu gëm won ko rek et puis déggul ay consignes ba paré yalla jappalé ñu ndax aduna moom lepp lu xew rek yàlla voilà ngeen dem ci coupe d' afrique bi ah, ngeen joué carton plein maanaam ngeen gagné ñëpp naka ngeen doon joué match par match ak yan conseil leen ko si doon dañ doon jël match bu nekk match bu nekk final la match bu nekk moo nekkoon dernier match suñu vie match yi noonu lañ ko doon jëlee étape par étape waaw noonu lañ ko doon jëlee en plus tamit coach yi lu ñu doon wax ñëpp jël nañ loolu tamit pression la woon quoi si ñun moo taxoon il fallait que ñu def noonu noonu pour mën see génn. voilà euh, match yi ngeen doon match par match ngeen doon ak aussi est-ce que aussi euh, li nga xam te Sénégal maanaam boo xoolee ci quatre trophées lañ jël yéen ñu leen doon xaar est-ce que aussi amuloon pression bu nga xam te ne amoon na si pression touti, mais mais comme coach lu koy waxee président fédération moo nous woo na ñi ay lañ c'est pas ñu leen di pression di leen wax ñëpp jël nañ mais ñun conscient woon nañ sur loolu pour pour mën a dem jël trophée bi. donc loolu source de motivation la wala lan la. waaw source de motivation la comme que ñëpp jël nañ tamit nit moom loo mënti dox dem do bëgg dess si ginnaaw. voilà ñu gis euh, ci ah, ci compétition c'est sa première titularisation ñu seetaan la c'était contre Burkina Faso nga def benn match bu extraordinaire nett la ñu match boobu. ah kontaanoon naa trop parce que tournoi bi mun naa wax ni du début à la fin dama blessé woon mais sama fulla ak sama fayda ak sama jom moo moo tax ma continuer match parce que am xamoon naa lu may xaar te xamoon nañ ni que sénégalais yi soxla woon nañ trophée bi pour que ñu indi ko fi. bi nga fa demee yaa ngi doon jokkoo say famille wala am nga quelqu'un ki nga xam te mu ngi la doon conseil wala surtout sa nga xam ne moo nekk fële ca espoir de Guédiawaye expliqué ñu tuuti waaw maa doon déggante ak sama famille samay proche ak samay coach espoir de Guédiawaye maa ngi leen di nuyuwaale au passage coach su Sidi ak coach su Abdou ak tout le staff foofu ñun ñëpp maa leen nuyu le 10 novembre Sénégal war a delluwaat ci coupe du monde bi lan ngay xaar ci coupe du monde bi waaw incha allahu rabi ñoo ñoo ngi koy waajaat di gën a liggéeyaat pour mën a bokk si vingt six vingt et un personnes yu waroon dem yu war a dem représenté Sénégal incha allah dinañ gën a liggéeyaat pour mun see bokkaat. donc nga ñëw géej waaye ñu teeru la gis nga ñu teeru la gis nañ sax nga sotti tuuti xéewal maanaam nga jooy tuuti man ban ban ban ban yëg-yëg nga ci am. ah dama kontaan noonu quoi parce que man amuma ñu dul ñu ñii nii man samay xarit xam nañ ma sama famille xam nañ man moom suis comme ça te c'était l'émotion quoi dama kontaanoon trop parce que yombul quoi et puis man fu ma ko doon xaare lu ma lu ma gis ak fu ma ko doon xaaree bokkul source de motivation plus la pour man et maa leen di sant bu baax di leen gërëm. maanaam li nga xaaroon la quand même. xaaroon naa ko mais pas tellement nii nii nii quoi waaw. tey boo amoon loolu leen ban ban ban moo la naa bu baax di leen remercier sama famille. parce que nit amul lu dul famille amul lu dul ay seen xarit samay xarit waa team réseau ñoom ñëpp ziar naa leen ak ay seen yaakaar ak waa géej géejawaay ñoom ñëpp gis naa seen soutien tey pale gis naa fa waa géej waaye ñoo xamante ni dëkkuñu sax mun naa ni yaakaar géej waaye géej feneen lañ feneen lañ jóge ñëw gis naa leen pale ñu ñëw soutenir ma ñëw ba si man soutenir ma quoi loolu rek contentement am naa si contentement bu baax a baax. di remercier tout d'abord waa koñ bi yëpp ñi fi teew. ak ñi mënul ñëw ñu aussi ñoom ñep ñoo leen gërëm man maa tuddu Issa Ndiaye je suis le grand frère de son père je suis son père donc. si mom vraiment content tamit ci équipe nationale di ko ñaanal bon on était vraiment fier parce que xalé bi nga xamné football rek la gëm vraiment depuis mu nekkee boy ba légui euh, di féliciter surtout ñuko encadrer depuis mu nekk xalé mu école de football bi mu nekkoon Espérance ak euh, le défunt Tafa vraiment kooku tamit participer na trop vraiment si sélection parce que su won mom yépp du am vraiment parce que moko japp depuis mu nek xalé ba légui voilà merci. naka ngeen di dundee ak mom fi ci kër gi avant muy bu mu petite catégorie ba ni mi dem nak ngeen dundee ak mom bon moom c'est un gosse vraiment sans façon am ben problème xalé bu yarou la dégg na ndigal coow li kay mooy bal bi bal bi bëgg na ko vraiment donc euh, vraiment il est sans façon du déranger ken mom son programme c'est le foot. donc xalé bu mel non mom donc vraiment dañ koy ñaanal rek lool rek vraiment baam donc actuellement ni sénégal amnañ yaakar ci mom ko ni relève mën nañ am ci euh, ci kanam touti touti donc est ce que tay ban ban jappalé ngeen fassiyene ko jappalé pour gën ko encourager si liggéey wax mom la bëgg mi football voilà dañ koy waxtaan ak mom rek parce que coupe bi baxna parce que c'est c'est un premier trophée donc vraiment content nañ ci momi it nañ ci mais su li jexé day delluwaat wat bu baax bon mu xol par rapport ak tournant bi seen lacune mu jéem rectifier par rapport à ça donc dinañ si taxaw ñun tamit lu ñu xam suñu expérience ñu ñëw en appui ak euh, ASC bi wa ASC bi amna ay techniciens yu fi nek ñom ñep dinañ impliqué pour ñu jappalé ko vraiment pour son souhait mu réaliser que yaa ko dégg nga ko légui mom néna il veut signer donc ñu jappalé ko ci domaine boobu pour mu signer inshallah lan ngeen xaar ci mom bon mu gorlu bon mom il est conscient sax parce que xalé bu neex

donc boo déggee tey sa kàddu yi sa père wax tey euh, lan nga ciy lan nga ciy tontu ak aussi ban réaction nga ciy def. ah kontaan naa si lu mu wax parce que lu mu wax moom loolu moo nekk si man depuis bu may nekk xale vraiment parce que man football laa yàgg bëgg waaw bu may nekk xale dama teel a bëgg football c'est grâce à nag Fidel Gomis quoi moo tax ma gën a bëgg football parce que man dañ ma doon woowee sax Fidel ñuule parce que tout le temps dama doon nekk si néegam. que du foot quoi lañ doon waxtaanee football loolu moom moo ma gën a exprimer wu pour moom si moom laa gën a exprimer wu pour mën a dugg si football. Mm-hmm. ñu gis yaay doomu Guédiawaye bi ñu yaa maam Pape Mamadou Sy yaa aussi euh, Diallo voilà naka ngeen doon dundee foofu en tant doomu Guédiawaye. ah feeroon rek parce que am na amoon ay doomu Ziguinchor dëkk Pikine ñun tamit ñu ñun ñun benn lañ am nañ sax benn photo buñ buñ ñun ñun dëkk Géejawaay. ban moo ngay tàggatoo parce que mën nañ la nga noppalu parce que euh, xaw naa guddi te léegi ngeen jógee ci voyage bi. non ah, maa ngi sant sama famille di sant samay parent di sant sama coach Moustapha Meng comme nu ma ko sama papa bi waxee man aw ma fayam Moustapha Meng parce que lu nekk si man moom moo ko def parce que lu nekk dañ na dañ naa dañ na ko si man dam dafa mënuma sa wax si moom quoi. parce que su ma demee ba yegg si fii nii tey moom la te su ma sañoon bis bii nii tey mu fekk ko fi mais yàlla lu gën rek lay def te dama koy ñaanal fu mu tëdd yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla may ko fa jaam quoi. ah et puis maa ngi remercier sama club Espoir de Guédiawaye suñu président Ousmane Wade ak tout le staff ak tout le. ak Abdou Niang mu coach maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy remercier encore di ko wax merci pour travail bi et puis big up quoi ak sama famille waa Tim Réseau yooyu ñëpp kontaan na surtout ma famille quoi sama bàjjen yi sama nijaay sama tante yi sama yaay particulièrement ma mère parce que man mënu ma wax sax si moom parce que loolu kontaan bu baax kontaan naa si ñëpp su waa koñ beeg ñëpp. voilà léegi léegi bi leen di commencé est-ce que am nga satisfaction. <laughs> mais. Uh-huh. man séntu ma woon lool uh-huh. séntu ma woon loolu te luy ñëw incha mooy dàq. man nekuma sax si moy loolu. parce que lui lu waroon am la rek lu am la. et puis dama kay remercier de passage encore et que merci beaucoup merci merci beaucoup. content na bu baax yéen tamit ma leen remercier bu baax mhm. ok merci voilà yakana mo mo moo nekkoon Pape Alioune euh, Ndiaye et tout à l'heure yakana dinañ dem aussi seeti maam Mamoudou si ak aussi euh, Diallo donc di euh, faire appel rek ni le maire de la ville Ahmed aidara aussi peut-être war na leen meuna recevoir parce que tamit ay doomu géejawaale fierté lañ ñiko ñeneen dekk yi di defee aussi di leen wo sen doom aussi ñomit aussi ay doomu géejawaay lañ donc diko ko ñaan di ko tàllal aussi que na ñëw recevoir doomu géejawaay aussi récompenser leen parce que ils l'ont mérité donc li leen jox rendez-vous légui ci kanam tu fële ci stade Amadou bari dem setti ki nga xam mom moy Mamoudi Sy jaa ngeen jëf